xaw ma million. si. tey tey tey tey tey tey tey ah. Cheikh Cheikh Cheikh xam xam xam nu ñuy def ah. dañuy dem jënd ay tàngal ay bonbon ñu lekk ak ay chips yu bëri ñu lekk dégg kon comme police da lay jàpp ah nii lañ def ah moom bàyyi bàyyi ay kon dañ koy dem ñu jox ko wañaa wañaa moom daa daanaka daa dañ koy nax déedéet waay wañaan déglu fii wañaan cinq cent lañ ko waroon a jox dañ koy nax daanaka daanaka fay nañ la 500 fekk lii lii matu 500 ñu ne ko fay nañ la nañ nañ dem jox loolu. après après ñu jaar ci sama booy boobu noonu sama booy bi bi bi lemoon tam seen kër am groupe bu nit. te te te te yi mel ni mel ni meesu lakk. waaw waaw waaw waaw comme expectative bu dijj bi boobu. ñu ne yow yow yow soo ko laaj jox la da nga koy da nga koy moom. li nga wañaan daa koy da nga wañaan am fay nañ la sa xaalis après mu daal di kontaan dégg nga xew man danaa ko eh, Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. ma lay jaay ci koor gi. waaye sëñ Mbàkke Seexu yi ñoo koy jaayal waaye lu koy yàgg tax ay ci daanañu. saw. wéyamu saw. saw saw saw. yaa ngi si jàmm. kii man kii eh eh eh kii man. <laughs> kontaan na. <laughs> yàlla yàlla lañ koy may. ñu ñaar ñoo ko moom ñu ñaar am. ñooñu <laughs> de. waaw dangaa xeeñ dangaa xeeñ man def ma loolu dangaa xeeñ. toog toog toog toog. dañ laa fay sa xaalis mooy xaalis bi ñu jëloon. yëpp doon joxaat ñuy dem. da ngay génne sa taat. waaw. waaw jox ñu ñu dem jaayaat. ak kii ak na ngay def. si man côté bi laay jaar dégg nga nii laay jaar bu njëkk. dama tàndarma tàndarma tàndarma damay damay damay jaar yomb aywa tàndarma aywa aywa tàndarma yow mu ko weeru koor mun la wax ko woor pa pa pa Issa moom moo gën a moo gën a booy. booyee. waaw ah, kaay jaam tàndar. ñëwal rek. naaj dafa tàng loolu quoi. da ngaa bëgg sàcc sama tàndarma. non sàcc ma ko dama dama bëgg nga jaay ma tàndarma. ñeent moo des ñeent. ñeent mbuus moo des. waaw waaw xaaral gis gis ñetti mbuus par exemple ñaata. léegi léegi damaa bëgg ñeent mbuus yi dama koy jënd waaye dama laa bëgg a yónni ci bikit ba. nga dem jënd cigarette ci bikit ba nga dem jëndali ma boo ñëwee ma may la yooyu ceeb. man dama jënd cigarette grand yow weer koor bi yow nit ñi di woor xale xale yi sax dañuy woor yow yow ma jëm nga toog fi naan da ngay tux ay cigarette ñàkk fayda te weer koor ah da ngay war a profité jaamu yàlla mais booy man dama lay yónni ci piquet ba cigarette boo ñëwee ma lay may weccet bi bu fekkee yow loolu moo tax nga jënd sama tàndama kon kon moo xam ne du ma jaay ndax ndax man du ma jënd cigarette kon doo ma jaay joxam tàndama bu fukki dërëm ak cent par an ak ñaar weer koor gi nit ñëpp woo ma ne fii naan damay yónnee ay secret xam naa ne maa ngi ci biir ba ci kanam. yéy am na lu fi xew man danaa ko wax. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. Seexu Taaboy ci koor gi Seexu Taaboy. Eh, Seexu Taaboy ci koor gi. man man man damay jaay tàndarma ay ma tàndarma ndax tey ah damay jaay tàndarma koñ bi ñoo gën a soxal koñ bi du ñu jënd dara ay ma tàndarma tàndarma. tàndal kër moom ay mbaxal ay mbaxal la ñuy mooy xeeñ ci koor ay bu ñu woor aywa tàndal ma yow yow yow ah yow démb ba maa lay seet démb ba léegi maa lay seet. man sama yow yow. ma la joxaat dara laa du ma la ko. yow yow suñu mbàgg yow da ngaa soxal xam keroog fi nga wax sama bopp néew yi ba noppi nga yow fi naan nga indi problème. ama yaa ma tooñ keroog yow yaa wax ma jox la nga dem yóbbu ko seen kër te seen kër ay groupe nit ñoo fa nekk. nga ñëw nga wax ma dañ jël nañ ko léegi léegi ba def naa nga jël sa xaalis léegi gëmmal gëmmal ma jël sa xaalis gëmmal. di nga ma jox waaw di nga xool dama compté ba trois ah léegi nga xool jël sa xaalis. gëmmal maam yàlla tey danga may fay tey tey danga may fay ma tap téere maam yàlla danga teel man taxaw man naxuma la téem téem a kawas léegi gëmmal <laughs> gëmmal jël sa xaalis maa ngi gëmm ay eh, gëmmu taas ma taas ma gëmm naa dégg 1, 1, 2, 2, 3.